bisu ajuma day moom nee na fexe ba jàng ca suuratul kahfi boo bëggee jariñoo lépp loo wute njariñ daal xamal ne fexe ba jàng saaru kahfi ci bisu ajuma moo ci ëpp solo moo ci gën mu daal la ci wax nag ay njariñ ci boo jàngee kahf ci bisu ajuma bisu ajuma soo ci jàngee saaru alkahf dañu lay leeralal sa digganteeg kaaba ga bu ñu ne ku jàng saaru kahf ci bisu ajuma ñu leeralal la sa digganteeg kaaba ga al imaamu Shawkaani day wax ni lañ ci jublu mooy rek al mubaalaxatu fi tawaabi tilaawatiha bima tataxaqaluhu al afhaamu wa tatasawwaruhu al maanaam tuyaaba jë moo réy réy ba nga xamee ne mu su laa wax na mu toll ñu bëgg la koo nag misaalal misaal moo xam ne da nga ca jéeñeere na tuyaaba ja réy ñu wax la ne la saa yoo ko defee rek kon ñu leeralal la sa diggante ak kaaba ga mooy fa nga toogoon di ko jàng sa diggante kaaba ga lépp dañ la koy leeralal loolu misaal rek ci tuyaaba ci na muy réy ba nga xamee ne daanaka xel mënu koo jeeñeer te mënees la ko wax itam ba nga xam ko